Moustapha Sylla ñu ngi lay nuyu di la laaj lan moo sabab sa teewaay tey ci seen atelier bi. ak lan la wund atelier bi. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp seen tur leen fay seeni sant eh, li sabab suñu daje fii tey. mel ni confédération paysanne force paysanne 3P ak yeneen kuréel yu mag yi ci réew mi ngànk mbayum Sénégal ñu daje fii tey dañu am lëkkaloo gu ñu fas suñu diggante ak semis. bi nga xam ne docteur Bokar Daaf moo ko jiite ak SF bi mu àndal ah, ndax euh, gis nañ ne semi bi lu am njariñ la mu ngi dox naam waaye ba nga bëgg doxin bi gën a bar bar nag jëm ci monde rural bi mooy saa bopp suñ daje moom fii tey. lan ngeen di séenu waaw lu ñu séenu rek mooy àndandoo dem si le terrain. ngir renforcer mutuelle yi mu gën a dox ak am nañ ci yeneen xalaat yoo xam ne gis nañ ko ci doxin wi ñu fas yéene nag lël bi ñuy def tey bu ñu ci jógee lu ci bari ñu waxtaan ci ba déggoo ci ba bu jógaatee nda war a daan yeneen dañuy yëgu bala ñoo yanu moo tax bu tey suñu lël bi tey bëgg nañ bu ñu ci jógee waxtaan waxtaan woo xam ne bu ñu ci jógee kenn ku ci nekk dangay xam la nga war a def nga def ko ndax bu ndajawaatee fii juróom benn weer nattaat. xamee def nañu ay jéego yu am solo loolu moo sabab daje bi. ndax euh, mutuelle yi ñun niñ ko bëgg niñ ci xalaat biñ ci am du lim bi du limu mutuelle yi limu nit ñi lañ bëgg mu bari ñi ciy bokk lañ bëgg mu bari waaye du benn ñaar ñetti ñeent ba jëm junneem jun déedéet dañu bëgg mutuelle bu nekk ña cay faju la ci alal. man da ba des ba bor du am waaye fekkee métier yi bari na bor baa ngi yokk kon doxin wi des na kon faaw ñu waxtaanaat te ñu ci war a dugg ñu dëgg ñu bari seen kattan des na ci li ñuy laaj donte président def na ci effort mi ngi def genn wàll ñu def genn wàll ci juróom-ñaar ak ñaar yi ñu ci bokke waaye ñun am na ci yeneen xalaat yoo xam ne jàpp nañ suñ ko tëralee wax ko par famille jàpp nañ ne insaarab bi dana gën a dox ci dina gën a yomb. nañ bu jógee fii ba signé kuréel bu ne ndax plateforme bu nekk dina signé convention ak CMU bu paree def tournée nationale kuréel bu nekk da nga dem sensibiliser say membres ñu dugg ci mutuelle yi ndax du yam ci atelier bi ren ndax day am yeneen daje yoo xam ne nii ci niveau euh, comité de pilotage régional yi ak départemental yi dinañ ci def ay daje yoo xam ne ñun kuréel bu nekk dana ko càmbar da ca dox ba bu ëllëgee bu nataatee xam ne kenn du ne bokkuma ci te boolewuma ci. ñaata nit ngeen fas yéene dugal ci ci seen i. waaye li ma xam mooy kuréel ba ci ne ci ñun rek lu mu néew néew ñi ca ginnaaw bu ñu duggee ëpp nañ cent mille personnes. ci tënk rek ñaata kuréel ngeen free plateforme yi. ñeent lañu. waaye fi jàppal ne fukki kuréel ak juróom ñu ngi fi yoo xam ne kuréel bu nekk ko jiite tey ña ci gën a néew yore na 200 personnes ña ci gën a néew am ñoo xam ne juróomi junni lañu ñuy fukki junni lañu ñoo xam ne dañoo affaire ci biir plateforme yi yor seen kuréel bopp 15% بإتاه بيدي خار كون منكو خارسيين ماني ماني أمسي 100% إن شاء الله جريس ياكل قول زي كيف يا